maa ngi leen di fay. lan mooy expliqué tey fii sa te teewaay journée bi di 8 mars. waaw sant yàlla du d'abord maa ngi leen di nuyu presse bi sama gars yi ah di leen béggee di rafetal seen liggéey di rafetlu seen liggéey bu baax wax dëgg yàlla ko leen xam ah, bi may ñëw fii laa leen fekk ci naaj bu tàng bi ngeen taxaw rien que rek pour wane ni ah am na sunu ay yaay sunu ay sœur sunu ay rakk yu nekk fii yoo xam ne war nañ leen taxaw war nañ leen soutenir muy ñoo xam ne ay jigéen lañu xam nga tey nag di journée mondial de la femme xam ñu woote fii nga xam ni euh, mooy camp pour ñëw soutenir jigéen ñi tout d'abord bé bégal leen mais tamit apporter suñu soutien li nga xam ni mooy ay ay ay loo xam nga jàppale leen ku ci nekk sa doole loo am ak loo mën artistes yëpp daje fi wax dëgg fa yàlla di saluer ñoom jibi xam nga ak pend gisee ñoom aba ak ñoom euh, euh, bisu ngoone bu baax xam nga gars yi ma fekk yëpp tey moom sama xol dafa tooy quoi sama dama kontaan di leen remercier tamit bu baax yéen seen taxawaay Pourquoi le choix de Djeri Ngoné waaw pourquoi le choix de Djeri parce que c'est mon parce que sama euh, liggéey ak sama carrière ak li nga xam ne yaakaar naa ko ci sama ci sama ci sama carrière sentir naa ko def ak ñoom te ci ñoom laa ko gis moo tax le choix de Djeri Ngoné waaw. bu ñu ñëwaatee maanaam si wàllu femme yi di dégg ne temps yi nga takk di di ñaareel. non loolu amul gars yi dañuy wax rek xam ni ko gisee yow ci presse bi noonu laa gisee. non non takku ma wallaahi billaahi deeg sa baa moom takku ma. Ah, kon la yéene lii ñaareel. ah peut-être dañ may dañ may dañ may yéene dañ may yéene waaw voilà. merci beaucoup. waaw ngeen jëf. waaw xam nga comme li ñuy wax rek man moom nit laa boo xam ne lu ñu pour man yàlla moo ko yàlla moom fa wowul rek xam waaw yàlla moom fa wowul tey fête nationale la bu benn artiste demee ñëpp dem nañu bu benn artiste demee ñëpp dem nañu xam nga waaw Wally on a des très bon relation comme comme tout le monde mooy comme li ma lay wax bu yàlla nee fii doo fi dem tey bu newuloon ma ñëw fii du ma fi ñëw man noonu laa gisee affaire yi et bu benn artiste demee rek pour man teewal na ñëpp quoi parce que fi may dem xam nga

xam nga jigéen moom mérité na lépp yaa ngi dégg ba mu des dóor ak saaga wax dëgg fa yàlla jigéen dañ koy jigéen iPhone 13 la boo ko téewee doo bëgg mu daanu doo bëgg mu yàqu doo bëgg dara bu taasee sax da nga koy fomp kon nañ leen def ni lu raw iPhone 13 parce que ni koy protéger ñu protéger jigéen moo gën quoi xam nga di ko di lancer góor yëpp ñooy sunu yaay ñooy sunuy doom ñooy sunu te xam nga ku ci bëgg a jàll ah, fonkal jigéen quoi jigéen bu mat a fonk la waaye. merci beaucoup waaw ngeen jëf.